parrainage moom euh, boo xoolee suñu code électoral euh, mu ngi ko wax ci article L57 di wax ne képp koo xamante ni kii bëgg na nekk euh, candidat ci élection yi da nga war a mën a présenter liste boo xamante ne ay électeurs la yoo xamante ne ñoom dañ lay signeel ne yow la ñuy parrainer mais li nga xam ne moom lañ tëral c'est-à-dire que les 34 000 et poussières au minimum et cinquante cinq mille et euh, poussière au maximum yaakaar naa bu fekkee ne danga nga bëgg a dem élection pour laaj euh, voix wu askan bi am na si loo xamante ne li normalement war nga ko mën a am. li nekk ci parrainage bi mooy amuloo droit nga parrainer ñaari nit amoo droit nga parrainer ñaari liste tey bu fekkee da nga wax ne coalition Yewwi Askan bi lay parrainer moom ngay xaar mu indil la li nga xamante ne mooy fiche de parrainage bi nga signal ko gannaaw ba nga ko joxee say données. yi nga xam ne moo nekk muy sa tur sa sant ak fan nga dëkk fan ngay vote laa bëgg a wax ak lan mooy sa numéro d'électeur ci code électoral bi dañ lay wax ne dès l'instant que signé nañu euh, signe nañu euh, euh, caution bi wax kii bi naka lay demee war nañu jox parti yi Euh, euh, la fiche bi nga xamante ne moo koy accompagner pour ñu dem ut ji seen parrainage en tout cas bu ñuy dem di déposé moom moom mooy dernier délai bi mais délai bi mu war a commencer man actuellement comprendre ma lan moo tax ba léegi jotaguñu fiche yi. bu fekkee esprit wu nga am le nombre de personne yi nga xam ne ñoo war a wala mën a parrainer pour nga dem élection man damay jàpp ne comme ni ma la ko waxee sànq damay jàpp ne loolu lu baax la mais bu fekkee ne yow ki nga xamante ne moo lay contrôler. moom mën na jaar ci affaire boobu noonu ba indil la problème bu boobaa dootul nekkati lu baax loolu kese moo fa nekk moo tax ma ne la day nekk benn couteau à double